asalaamaaleykum mbokk internet yu wasaare sport bienvenue dans votre rubrique revue sport sur wasaare sport xam ngeen ni fu mu toll nii coowal Sadio Mané fu mu toll nii moom la ñëpp di waxtaanee gannaaw ba Sadio Mané bëgg rester foofu sa Bayern Munich waaye waa Bayern ne ñoom ñoo lànk ñoo bañ Sadio il faut que mu jeexale fii contrat am parce que xam ngeen ni ñoom lépp ñu bëgg fu mu toll nii mooy kii di Harry kenn jóge Tottenham daal di ñëw foofu sa Bayern te il faut ñu jaay Sadio Mané pour Harry ñëw. waaye Arabie Saoudite moom tamit ñoom tamit comme naa ko ñu waxee à chaque fois lépp loo bañ am ne keneen ku ko bëgg Arabie Saoudite ñoom seen rêve yëpp fu mu toll nii mooy jël kii di Sadio Mané looloo waral fu mu toll nii l'attaquant sénégalais voulait rester mais le Bayern na fait pression pour trouver une solution c'est ses de Sadio Mané waaye démb bu ñu jàppee si seen information yu am Sadio sax moom annoncé na incha allah dina dem foofu sa Arabie Saoudite waaye club bi nga xam ne nii fa lay déposer ay valisam moom hmm. mooy si le nga Al Nasser a convenu des conditions personnelles avec Al Nasser le déménagement n'est pas encore fait mais Mane a accepté le déménagement en principe donc Sadio Mane ak Cristiano Ronaldo ñoom ñaar ñoo nar a attaque mu attaque gëm feu et flamme beneen doomu Sénégal bi nga xam ne nii moom tamit si mercato bi ñu ngi koy waxtaanee gannaaw ba mu jógee foofu sa Paris Saint-Germain Abdoulaye Diallo aurait été en discussion concrète avec le Real Betis et son profil suscite également un grand intérêt de la part de Naples maanaam ñaari équipe yooyu yëpp xam ne kenn ki moo ngi nekk si Italie beneen bi nekk sa Espagne Sadio kii di euh, Abdoulaye Abdou Diallo. Real Betis équipe boo xam ne Sabaly moom fa ak kii di Naples mi nga xam ne kilo globalité foofu la nekkoon dem fële sa après jóge foo dem foofu sa Chelsea jóge fa dem foofu sa Arabie Saoudi retour de Bamba Dieng moom tamit daal ñëw commencé lii di entraînement am waaye leen yi nga xam ne légende la moom la cap yi lañ koy tuddee muy des prix Payet moom tamit fu mu toll nii jóge na Marseille comme nous koy comme nous à chaque fois euh, le talent le talent c'est talent oui pas être qu'une bien bourré, talent pur doté d'une élégance rare le numéro 10 de l'OM a marqué a marqué le club par sa classe technique, ses buts et ses passes qui ont inspiré toute une génération d'Olympiens et d'Olympiennes. L'ensemble du club souhaite des prix ainsi qu'à sa famille et le meilleur pour la suite. L'OM sera, sera l'OM sera toujours leur maison. Beaucoup internet dit Payet va quitter l'OM. Ce n'est pas un moment facile. On va on a convoqué cette conférence de presse pour annoncer qu'on a décidé de ne pas continuer l'aventure avec Dimitri Payet. Ça, ça a été beaucoup de semaines de discussion. mu mel ni rek peut être est ce que fu mu toog nit Iliman Ndiaye dina mën a accepté pour ñëw foofu sa foofu sa OM ba début de période quitté est ce que ça le cas ou pas si yow moo gën sax nag ci wasaare sport ni loon ni loon tey seen biir biir biir sport dañ jox dig dañ ba suba